mooy Khalifa Abacar Sall mii nekkul ne digganteem ak Pastef moom la jógee man jortuma ko xalifa Sall man jortuma ne ca dëgg-dëgg am na daray mbañeel wala daray lu bon di ko jëmale ci Ousmane Sonko wala Pastef xamu tax nuruwu ko doxay na tamit wane wu ko gis bi may toog naa fi ma ko déggee muy wax daani ni ku ku neex nga reew nangam nangam muy wax jooju mu doon wax dama ne kii du Khalifa Sall muy wax wax la joo xam ne dem na ba sës wala wala mi ngi dugg ci yoo xam ne xamu ko wala gis nga politique dafa am ñoo xam ni mën nañoo wax lu leen neex waaye Khalifa Ababacar Sall mii karamam wanewut loolu doxalinam wanewut loolu ci yar ak teggin mën naa def politique ba waaye politique ci loolu rek la war a nekk moom Khalifa Ababacar Sall ndax royukaay la ci ak doxalinam ak lépp kon bu fekkente ne dem nañ ba agsi fii diggante Pastef ak taxaw am jafe-jafe lañ xam lan moo ko waral ca dëgg-dëgg maanaam ndax kenn ku nekk da nga doon xeex say intérêt ba kenn ku nekk ba nga amee say intérêt nga jëm sa yoonu boor ndax ñu bare bare li ñu wax ci Sénégal mooy diggante Pastef ak taxaw seen ànd bi ànduk intérêt la mooy ñeneen Pastef am na doole xam nañ ni dem nañ ba tool koo xam ne moo téye politique bu Sénégal ngir nga am dara ci Sénégal foog nga ànd ak moom bootu ci ginnaawam Yewwi Askan Wi ñu bari ñeneen la ko sabab mooy kenn ku nekk ci politicien yaa ngi doon dàq sa intérêt te intérêt pour nga am ko mooy foog nga dem jege Ousmane Sonko xëcc ndaraam ci mbooloom nga am li nga bëgg ñu bari ñeneen bi nee ba jël euh, mairie bu Dakar ci la ñu wane ginnaaw ñu bari tamit gis jàpp ni ci dëgg-dëgg daal ànd bi dafa dëgguwutoon waaye daal càll li mu ngir mu mën a nekkaat diggante Pastef ak taxaw seenu ànd njëkk nañu xoolaat seenu doxalin maanaam lépp lu jëm ci wàllum intere politique nañu ko jël teg ko ne Sénégal mënoo fay def dara dara dara ba mu sotti te fii politique ma nga ci biir politique bu senegal mooy yàq lépp lu mu dugg da koy yàq ndax li ci ëpp seeni intérêt la ñuy dàq jot naa ni parce que taxaw fi ñu toll nii bu ni ànd rawatina élection yi ñu jëm moom a ah man di wax dëgg yàlla duma ko njort nag man jot njortuma ko ñu ànd maam ndax du ma ko njort mooy mhm. liñ naan la euh, ku ndóbi rey sa maam boo ñuul da ngay daw waa Pastef amaana duñ ko nangu